tiraanga ju réy ji nga xam ne ñëw na moom di dafa mel ni Serigne Saliou de junjoon na ko dafa mas am ku ñëw fi moom wax ko ne ko man de booba ci biir xilaafa gi la dama am yéene am projet boo xam ne bi day tàmbalee Touba ba Njaareem autoroute sëñ bi ne ko ah, waaye nag maa ngi koy toppatoo waaye mel na ni gars yi nangu wuñu waaye nag loolu mooy sama yéene ndax jubóo na maa ngi ñi ko man man na bu fekkee nanguwuñu damay bàyyi damay gedd fi ma ne sëñ bi ne matu ko de maa ngi toog ñun ñett a toog sëñ bi ne ko matu a gedd matu waaye moom da xanaa Eh, Touba ba Njaareem de moom nag xanaa ku mën na ku ko mën na jëlee Touba ba Ndakaaru moo gën sëriñ bi moo wax loolu mooy dëgg mu ne ko man daal loolu laa jàppan mu ne ko daal bu yóbboo nga bàyyi ndax lu yéene lu jëm si ci dëkk bi ak lu koy tax a baax de sëriñ bi bind na ko ci téere yi am na ci téere boo xam ne bii sëñ bay wax de moom da ko caa lu baree baree bari am na ci yooyu ne ci yi la ko bind kon lu waa waay yéene ci tiraanga rek loolu mën naa dogal mu ñëw waaye jërul bàyyi waaye ku ko mën a tàmbalee woon Touba ba Ndakaaru de mooy gën nga xam ne du jaar day teggi njaareem teggi dëkk yëpp booba de sëñ bi waxut ay Ila Touba xamut ne waxut ne sax nañ ko def daa waxee noonu rek yem foofu kon nag bu ñu demee tey ba lii président Macky Sall eggale ko loolu ndam la tey tur rek doy na Ila ndax néewuñu ilaa fenn ilaa Touba la ñu wax loolu nag képp koo am murit nga mbaa nga di taalube sa xol war naa sedd ci ilaa ci tur wi waxuma ay waxuma leen tur rek doy na ilaa Touba ji da wax ñu ilaa feneen suñ mun taxaa de ginnaaw moom moo woote ne bëgg ni mu wax sant sëñ Bass na ko ne ñëpp teeru kon day mel ni waxuñu ci àll bi de waa gi nga xam ne teraanga ci ñoom la jëm si ñoom la bëgg ñu teeral ko ganam gi kon nag ku murit ku soo ko manee bu bis baa war nga faa teew bu fekkee bëgg ngaa jëriñu autoroute Ila Touba bi nga xam ne dafa am jeexital maanaam loolu nag buñ ko waxee danañ xam ne mbiram sëriñ bi moo tuutut te lépp ci sëriñ dara du ci tuut te mbiram sëriñ Touba la mu waxoon ne sama mbir ci duniya lu mujj ñëw ëpp la loolu dafa feeñ ci autoroute illaa Touba bi loolu buñ ko waxee danañ ci joxe tuuti ay firnde ci dëkk bi nga xam ne tey fi lañ taxaw muy Touba Kanka bi mu fi ñëwee ñu ngi fi fekk sëriñ Mor Mamou Sarr li ak sëriñ Makumba li ñaar ñii la fi fekk ci magi dëkk bi nga xam ne moo tax ñuy màggal bis bi mu sëriñ Mor Mamou li ay satama fi nekk ak sëriñ Makumba li ay satama fi nekk ñaar ñii la fekk ci biir Touba Kanka oo leen waxtaan ak ñoom saafante ak ñoom. diggante fii ñu taxaw nii ak fii Serigne Touba wàccoon ñaar fi ne euh, ñaar téeméeri mètre la fii ñu taxaw 200 mètres diggante fii ñu ma taxaw nii ak fii si barab bi Serigne Touba euh, wàccoon maanaam 200 mètres la nga xam ne tëli bii nga xam ne moo kii gi jaar na ci dafa wër dëkk bi euh, wër kër gi Serigne Touba taxawoon maanaam autoroute Ila Touba bi da ko wër. bi ñu ñëwee ñoom dañoo wax ne wër nañ ko waaye dañoo wax ne dañoo ormal yi lu bokk Sëñ Tuubaa dañ ko ormal ba tax nee lañ koy béyi di ko wër di liggéey di ko wër nee nañ dara du ko laalit nag nee nañ dara du ko laal dañ ko fay béyi mu doon barab siyaare kaay ku ñëw ci autoroute Ila Touba bi dem ubbi barab bi siyaare bis bi Sëriñ Tuubaa ñëw alhamdulilah rabbil alamin Ila Touba bi tam jaar fii ci diigaan ndax boo jógee boo koy yéeg yaa ngi koy yéegee dikka ba dëkka bëre dëkka bëre ak diigaan benn kilomètre la mu nekk sunu dëkkandoo boo jógee Dakar tam da nga ñëw ba dëkk ba ne wàcce ñëw ci fii ci diigaan ilaa Touba bi tam moom itam mu def fii xéewal bu mag boo xamante ne euh, pont bu mag boo xamante ne jur gi ak oto yépp dañu ronu ci suuf kon nag sëriñ bi nag lépp loo xam ne bëgg na ko ci dëkk bëgg bëgg ko ci mbokk yi rek moom mel ne moom da ko tey ci loxam incha allah euh, daañu yeble daañu wax lépp mboolem koo xamante ne danga aju ci diigaan ah bésu ñaar fukki fan ñeen ñëpp na ngeen jóg ngeen teertul sëñ Mountaga ganam bi nga xam ne da koy am muy njiitu réew muy président la république moom itam mu liggéey liggéey bu mag ci réew mu liggéey bu mag ci maanaam ci Ila Touba bi kon nag maa ngi soññ mboolem fu taalibe nekk mboolem fu mbokk nekk mboolem fu xarit nekk mboolem fu dëkkandoo nekk ñoom ñëpp nañu sol seen yére yu rafet ñu ne dem nekk ci gennaaw sëriñ bi teertu ko gan bi nga xamante ne mooy ñëw ñun ñëpp nañu nekk ci gennaaw nekk taalibe teertul ko ganam loole lañ ci soxla soxluñ ci leneen ma soññ nag ñi nga xamante ne dañu sës ca tali ba muy waa Jonwil muy waa Geloo bu ma limee sax dama yàq moo naam mboolem département mboolem Sénégal yëpp waxuma sax département Mbacké képp ku aju ci kër gi foo mën a nekk te nekk ci biir réew mi na ñëw teertu ñu gan bi nga xamante ne euh, se xalifa général du murid sëñ Muntaga ibnu sëñ Basir ibnu Cheikh Ahmad Bamba da koy am ñun ñëpp ànd ak moom teertu ko nekk ko ci gennaawam ñu ànd ak nag jiital ci yar ndax taalibe lu mu li lu dem ci kër sëriñ wala nga ñëw ci benn kili bu amut yar lu mu di doon li nga doon ëmb yëpp day sa nas nasaxaay nañu ànd ak yar ak teggiin teertul ko njiitu réew mi macha allah mu ngi ñëw boori trois heures ci ngoon wala ci boori ci wetu perron bi fii pont bi nekk ci wetu dëkk bu rëy mu diggante dëkk bu ak kàng diggante dëkk bu rëy ak daaru sow ñun ñëpp nañu ànd jiitu foofu teertul ko macha allah ànd ak yar ak teggiin mboolem ku nekk ci dep surtout nag ku nekk ci département Mbacké ak foo mën mënta nekk sama baat wala foo mën mënta gis sama jëmm woo naa la ci teertu boobu yéen ñëpp na ànd teertul ko sëriñ bi teertul ko ki nga xamante moo nekk njiitu réew mi tam foofu ànd ak yar nag daal di teertu teertu bu rafet boo xamante ne dafay nekk mucc euh, euh, teertu boo xam ne mosuñu ko gis ci Touba mosuñu ko gis si Lépine te ilaa Touba bi boo jógee Ndakaaru da koy aw ba ñëw ba ñëw dëkk bu rii kon nag tali bi tali ñëpp la yoon bi tam yoon ñëpp la kon nag nañu ànd ak yar ak teggin ak taalibe be teetu loolu laa leen doon digal maa ngi sant ñëpp maa ngi sant ñëpp onon wanndiraaɓe fulɓe noon min on salmina min on tintina manan ceerno neliɗo e eh, délégation wonde homo udditane bedde ila touba o bedde ila touba o noon onon fof oɗon hen nodda saabu yakar e waddede taki jilli en hen nden noon ɗum ɗon yakare koddigal e jillede jiidu l'islamu taki noddin hen e onon foof yo on gar tertoɗon e, manan ganɗo kono omo dañata hono gardiɗo lesdi ndi homo uddita manan ila o ila touba noon sika laari ɗo e digan mbo rewi nder wuuro he mbo rewi e alhamdulillahi rabbil alamin mbaɗi ɗo pom mawɗo mo gandanɗan hoore ma jawdi ndi rewa less otoji ndewa less de ɗum noon après de mbaɗa hakkante torimi ɗum ɓe gokki enum ɗum jillano koye e manan e programme ɗum ɗon noon tawde ceerno ko koddijo ko mawnirawo ko kelib ko ceerno men ko fof e, e si noddi en e koddigal yo en noto e koddigal ngal ngal noddi en tertonana ɗum koɗo mum mo hina ande ko ɗo e jeeya ɗo e jeeya yo en terto gondu e ceerno seydi monta gadi gondene mum ha tertoɗo koɗo mum ha 3 heures arata waktu tati kikiɗe arata e si ari e kala ko ceerno suhluɗon mbaɗe kala ceerno sohla ko ten mbaɗa ɗum allahuma salli ala seydina ahmad wa ala alihi wa dëkk bi sëñ tubaa ko moom lu fi waay def sëñ tubaa ko defal sëñ Muntaxa itam mooy sëñ tubaa ci kaw suuf woote lii ubbi e, ilaa tubaa bi ñuy ñaan bokki taalibe yi ku ci mën a teew nga teew ci ayam la la sottee kon day mel ni sag bi moo ko moom sag boobee nag noonu ñëpp nañ ko jàppale ba mu gën a àntu woote na université ñun ñëpp ñu wuyu ko ah, war ca ànd moom lii nag gannaaw a bëgg-bëgg ma nañ ko jàppale ni mu ko bëggee ñu ngi ñaan képp ko man te dib taalibe wala mu lib julit ku ci mën a teew nga teew ila